alhamdulilah rabbil alamin ah, asbillahi mina sheytaani bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi sant yàlla julli ci yonanteem bu tedd ma di jaajëfal Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul jaaraamal Cheikh Rahim Fall Babu Mouridine di ñaanal Cheikh Sidul Mokhtar sama borom yàggal ko fi te wéral ko ba yéene gi ma am ngir liggéeyal Serigne tubaak ak Serigne Baara sama borom defal ko ba defal ko lu kay njortam di ñaanal Serigne Cheikh Fall jëmb mi toog jotaayu Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Modou Moustapha sama borom yàggal ko te wéral ko ba yéene gi mam ngir liggéeyal leen sa borom defal ko ba defal ko lu kaye njortam mm, sëriñ bi nag moo ngi jotal ay kàddu rakki boppam di ab taalibeem di jëwriñam ca cees bu indi ay liggéeyam ci sëriñ bi muy ay tëbaski nga xamee ne loolu aada la ci Baye Fall nga xam ne bokkul ci li nga xamee dañ ko sos ci gannaaw Cheikh Ibra bokkul ci li ñu sos ci gannaaw sëñ Touba kon lu ñu sos la ci kanamu sëriñ bi nga xamee ni muy sëñ Touba mook Cheikh Ibra Fall wax nañ ni bi ñu ñëwee njaarim da ko woolu ba mu ñëw ne ko Ibrahima mu ne ko faal mu ne ko mbàkke mu ne ko demal wutal ma ay tabaski waaye lu feeg julli ñu it bu dara ci kër ga kon loolee fa la sosoo ñu koy def ci seen wayjur ci Cheikh Ibra Fall doomi Cheikh Ibra yi des fi ñu koy saxal ba tey jii moom mii mu toog jotaayu Cheikh Ibrahima Fall ñay sos ci moom it andil ko seen ub liggéey kon loolu mooy sababu Serigne Cheikh Ngounda Fall ñëw ànd ak njabootu boppam ak ay soppeem ak wëllëreem ak i xarit ñëw ànd liggéey bi liggéey bi nag li ci gën a yéeme mooy mënoon na ko yóbbante jox ko ay doomi boppam ñu àndi ko waaye ño ndigalu Seera Fall ñor na ko ñor goo xam ne moo tax mu ànd ak ñenn ci ay doomi boppam ñenn ci magi taalibe ak donge yi ñëw ci sëriñ bi li tax mu ñëwaat ci sëriñ bi nag moo di jëf mooy dundal yoon wi jëf mooy doxal yoon wi rawatina ab Baay Faal tabaski bi mu ko dajalee ba noppi mënoon na ko yóbbante waaye defu ko sëriñ bi wax na ma barki démb rek sëriñ Ibrahima kan mi nga xamee ni moom la nekkaloon danaañ jël ay tabaski daan ko jox cheikh Mamadou Moustapha Fall gannaaw bi mu noppee gis seex bi Fall liggéey ba yéema lool mu dem ba ci yàgg di ko joxe guddi sëriñ bii nee na ma sëñ Mamadou Moustapha Fall woolu sëñ Ibrahima kan ne ko Ibrahima mun na ko Fall mun na ko liggéey ba nga ma daan jox damaa bëgg nga koy andi waxtu ko daan andi. ndax dana tax ña ko narul woon nar ko dana tax ña nga xamee ni kat amoon nañ pas-pas mu yokk seen pas-pas am na ñu fi ñëw démb rek loolu laa doon wax ak ñooñ ñu bokk ci ay seexi sëriñ bi waaye kii nag rakki boppi rakki boppi sëriñ bi la bokk ci jàmbaar yi sëriñ bi nag diir gi fi joxee boppam sëriñ beeg léegi mboolem li nga xamee ni sëriñ bi soññee na ko fi def na ci lum man def na ci lu mënut nekk na ci ba sëriñ bi ne jaajëf mu raay ci kanamam dem. biir gi mu nekk ci sëriñ beeg léegi sëriñ bi mës ta xam ay soxlay saa yëram waaye lu sëriñ bi mës sa soxla faj na ko kon la mu jaayanteeg sëriñ bi lu wér la lu set la lu leer naññ la tabaski yi seede la ci kon ñu gën a góor góorgóorlu gën a feddliwaat suñuy laxasaay xam ne sëgam sëriñ bi moom mi nga xamee ni moom lañ jox suñu bopp moom la ñor ba tax mu génn waxtu wi di ko xaar ba tax rakki boppam it ñu dajale ay tabaski mënoon na ko yóbbante mu jógal boppam ci naaju tànge wi doxal ko andil ko boppam kon donge yi nañ gën a góorgóorlu gën a feetali sunu laxasaay lii lépp sëñ Cheikh da leen di wan ni kat li ngeen may jox soxlawu ma ci dara kaay leen ñu ànd ma wan leen ki ma koy jox ba ngeen xam ne man ab lantinoor laa du ma téye diw ab Baay Faal nag jëf mooy dundal ruwam ab Baay Faal nag nay fonk ndigal nanu bàyyi barkeelu yi ñuy barkeelu ci liggéey bi barkeelu bokku ci ay tabaski boo ci bokkee da ngay yëkkati sa tabaski jox sëñ bi lu des nga barkeelu ko gannaaw kuñ ci yëkkati jox ko soxna ngàttan ci lu dul jeex te boo faatoo ñu yóbbul ko sëñ bi kon ñu bàyyi xel loolu sëñ Cheikh nag loolu lay jàngale ñëw na ci sëriñ bi nag sëriñ bi lam fi wax leer na nañ wax na ni xolam sedd na guy ci jëfi démb yi ak jëfi barki démb yi nee na jëf ji it sedd na ci guy ndax doon na ci bokk na ci jëf yu rafet lool te neex naa xoolit kon sëriñ Cheikh sëñ baa ngi lay sant moo ngi lay gërëm moo ngi sant sa njabootu bopp gi moo ngi sant sa taalibe bopp yi nga xam ni di leen sant ci jëfi démb yi ak barki démb yi na liggéey wi nga xamee ne yow yaa ko àndil sa bopp muy gàtt yi nga xamee ne da nga koo ñëw joxe ci àddi Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ki nga jox liggéey bi muy Cheikh Serigne Cheikh Jëmb Fall nee na nangul na la ko kon jërëjëf kon jërëjëfati ñun ñu ne ci wetu sëriñ bi nga xamee ne ñoo di tànk sëriñ bi de xam nañ sa pas-pas xam nañ wóolu gi nga wóolu sëriñ bi xam nañ doyloo gi nga doyloo sëriñ bi xam nañ fa nga jaar ba laataa ngaa ci sëriñ bi loolee nag dara duñu ci bett sëriñ bi ay yoon yoon danay wéetak ñun di wax ci sa pas-pas ak sa murit ak sa taxawaay ci liggéey bi waaye jëfi réer borom lu waaye jëf yaa ko moom sëriñ bi nee na jëf bii nag dana la ko nangul tegal la ko ci loxoy Cheikh Ibra Fall mu teg ko ci loxoy sëñ Tuubaa sant na la bu baax gërëm na la bu baax a baax leneen la ci jàllaat muy liggéey Touba héliport bi nga xamee ne lu saf sëriñ bi la lu ñor sëriñ bi la sëriñ bi daanaka dafa pay la boppam foofa ndax dafa wax ñoo xamee ne ay nawle lañ ndax ndigeelu sëñ Touba mu joxoon nag ñoom kàddu ñu ne ca liggéey ba waaye sëriñ Cheikh sa taxawaay rafet na ci lool booboog tey jii lettre addiya bi la sëriñ bi jox yaa ngi koy beral yi fi boppam boole kook liggéey bi nga xamee ne xam nga ni sëb kilifa dafa tay la boppam te yaa ko fa bokk nga ci ñi ko mën a jëlee kon sa taxawaay rafet na bu baax a baax noppal nga sëriñ bi bu baax a baax mboolem ay nit tey boppam it taxaw nga ci bi ci mujj rek woote na ca Thiès barki Dembo Ndiaye andi nga ay millions yu jëm ca liggéey boobee te bokkut ak sa yëfi bopp. te jotewut ak tabaski dara la nga daan def da nga koo yokk waaye wàññi woo ko jërëjëf jaay jëfuti sëriñ bi li muy waxaat nag mooy mbokki cees ak lu wër cees képp ku fa nekk te tënku ci liggéey bi nga xamee ne sëriñ daa koy woote ci Touba Ilipor na fekk sëñ Cheikh Ngunda fa mu nekk xam ne mooy jëwruñu liggéey ba foofee ku am loo ci bëgg xam na nga dem ci moom ku am loo ci bëgg joxe na nga dem ci moom moom la sëñ bi doxal ndax bokk na ci rakki sëriñ bi nga xam ni ñu noppal sëriñ bi lañ lépp loo xamee ne yaa ngi koy joxe mu jëm ci sëñ Cheikh jëmb da ciy dolli wërsëgam waaye soxlawu ci dara sëriñ bi moo ngi lay sant sànkam boppam moo ngi lay gërëm xolam sedd na ci yow guy yi nee na it rafet njort na nga dalal saw xel bu baax mbir kat képp ku koy dundal dana la dundal képp ku ko yor dana la yor jëf ji jaax jëf ji baax ji ngay jëf di ko jëme ci moom nee na jëf ji day soppeeku yiw fajal la say ajo ci sayir fajal la say ajo ci baatin wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf xam pas-pasam ak ni mu wóolu sa kilifaa tax ngay wax ci moom jaa ngeen jëf jaa ngeen jëfati wasalaamaaleykum wa rahmatullah moo ko dimbali fu mu yàgg looloo ko fa yóbbu lépp sëriñ bi la waaye yaa ngi ci biir ci la nekk la nekk rek. bari xaar di delloo sant rek. tey ñaan yàlla li yàgg rek te saa borom gën ñoo nangul jëf ci ci barke Cheikh Ibrahima lii lépp nag ab soññee la ci ñun rek ndax euh, li ma ko wax de jërëjëf joo dégg rek mm-hmm. ab soññe la mi ngi mel ni ab étage rek mm-hmm. ah escale boo teg rek fexe la teg ci beneen mm-hmm. waaw te bañ a gestu rek sëñ bi moom li ma wax rek sëñ si jëm defaluñ ko dara ndax ñun biñ ne ko jox na la suñu bopp àddina ak àlaaxira doonoo jàpp ni yére yi ñu sol sax moo ko moom lal yi ci kër gi lépp moo ko moom kon nag bu nu baaxee ba am lu ñu ci laaj nu bàyyi li ci des. Mm-hmm. dana mbaax a tax. Mm-hmm. mbaaxama tax kon ñu xamee ko noonu rek.